ñëpp xam nañ ni ay gel journalistes yi soxla nañ ko parce que on est sur le terrain ñoo ngi interviewé saa su ne ay nit te tamit cas communautaire buñ ko déggee rek mooy

bu baax ci geste bi nga xam ne moom la def tey. ñu ngi delluwaat rek euh, di di gërëm bu baax Habib moom ñu muy àndal yëpp ñu muy àndal di liggéey ci politique bi ñu mu àndal di ay xaritam ay am di jaamoom ñëw tey indi euh, doom bi muy doom bu am njëriñ nag wax dëgg yàlla di am njëriñ ndax li ñu soxla la produit mu indi li ñu soxla la waaw muy madaar bi di savon liquide bi di gel bi di lépp même big yi lu ñuy soxla la casque yi lépp lu ñuy soxla la euh, loo xam ne day nekk pax ñu mun ko mën a utiliser si xeex bi xeex bi nag mu àdduna yëpp la laal am na réew yoo xam ne am nañ doole muñ ko mën a dékkoo mais fii réew moo la xam ne boo xam ne naan yooyu xam ne réew yi néew doole yi la donc développé fu nekk ku nekk rek boo joxee contribution am ñu jàppale ko état bi je pense que dina si baax li ñu indi nii mooy xanaa ne si région bi am na ñu mobiliser woo sax li mu laaj si xeex bi mun nañ ko si def waaw am nañ ko si def xam ne léegi li xam ne nag ndimbal bu état bi war a indil entreprise yi la li état di mobiliser ñu mën ko dugal foofu wante ñu la ñaax daal képp kuy Thiessois nga indi sa contribution soo ko indee ñu boole ko dajale ko euh, mën ko dugalaat si xeex bi mën ko dugalaat si njaboot gi xam ne amuñu doole boo te fi mu ne ñu ngi obligé seen kër ñu mën ko dugalaat si ñoom loolu daal la ñuy ñaan Thiessois bu nekk di delluwaat deg di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal si li muy liggéey yàlla ko yàlla yokk dañuy ñëwoon tey fii si gouvernance pour lan indi li nga xam ne maanaam moo suñu contribution si walu musiba bi xam manam mo ñu dal moy bala bi laa mën ñu dal si bi dëkk bi ñun en tant que mouvement ànd soxal Sénégal euh, ñëpp xam ñu dañuy œuvre si walu développement walu social li may faral di wax toujours moy politique du wax ni ciow rek du programme politique c'est le social et le développement donc naka naa ñun mom moy suñu point fort moom mooy suñu créneau moy suñu xol euh, si lolu aussi euh, comme noonu ko xamé yakarna yentim yéen ñi xamné aussi moy xamné yalla nek la presse locale

Inch'Allah, parce que que bi ngeen aussi tay bu doon tay kenn du xam li nga xam na xam xew bi bi tamit parce que yéen nelatu leen di wax moy non suñu mbokk presse bi ñoom ñoo gën exposer parce que ku nekk ñi dem di di ay information donc ñaanal na yalla rek yalla na ñëpp yalla fi yalla jëlé bi pour dire que ñun en tant que And Sénégal que je dirige ma ngi seen di accompagner